nu am màggal gi moom la nu jëm màggal gi mooy sunu ndam jërëjëfe màggal gi waaw booy jënd rek jëndal qualité bokk na ci li lay noppal waaye booy wër qualité ñëwal fii ci Touba Daaru Koso communication waaw TDKC 313 mooy kër gi jóg taxaw temm ci faj seen jaaxle ci lépp lu jëm ci wàllu portable ak i accessoire am ba noppi nag dinañ ci defal ay njëg yu xéewale lépp lu jëm ci wàllu marque de qualité waaw tamu soxal portable moo xam muy LG iPhone Tecno Itel Nokia Samsung ba ci yeneen marque yu ngeen dul fekk fenn fudul fii ak lépp lu jëm ci wàllu accessoire moo xam muy chargeur écouteur Bluetooth bépp xeetu écran wala digital waaw anti choc waaye yamuñu foofu de lépp lu ngeen soxla mu jëm ci wàllu décodeur wala clé ba ci carte mémoire diggante 1 giga ba 64 giga offert MP3 dernière génération nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour vous satisfaire ñu ngi nekk fii ci Dakar rue Moussa Diop angle Ravanel ci salle de vente ngeen di fi fekk ñu xereñ lool mën seen liggéey dolli ci yërmande muy Serigne Abdoulaye Ndiaye ànd ak Serigne Moustapha Fall ak Serigne Cheikhouna Kouma 77 553 32 33 wala ngeen ñëw ci suñu place bi nekk ci avenue Sénégal angle Blaise Diagne gérant bi di Khadim Ndiaye 77 411 30 am nañu beneen place bu nekk fii ci rue Moussa Diop angle escarpé ci wetu Sénélec Vincent lépp lu am ci yeneen place yi am na fii gérant bi di am ni xumba ngeen mën a woote ci 77 920 29 29 77 284 71 91 TDKC 313 waaw roy daal du ñëw pire. day wane ay kéemaan yu rëy rëy taxul di Bamba masmoone إلا الجنة لك خولنا أكبر بالعقل وبالعمل فمن ما خالي فقلي تعب في الراي الله أكبر من حقي ومن عملي عملي مقالي فقلي تعب في الراي الله أكبر أقدي ومن حملي ومن مقالي كل تعب في الأرض بسوى خطير رب الأكرم الله عملي مقالب كل الله الوجود وسيخ نساء قدم مع البخار خلافي بعثة خلافي بعثة خلافي بعثة خلافي بذكر الله مصطفى وفاس كل دارين والله لدى الله أبدا إلا جهاتي سأجري لدى الله لرسول الله لله لرسول الله محمد رسول الله ساخنة لرسول الله لرسول الله محمد رسول الله ساخنة لرسول الله لله ساخنة المدينة المنورة مصطفى ساخنة لرسول الله بالله يا محمد رسول الله ساخنة لرسول الله بالله محمد رسول الله ساخنة لرسول الله المدينة المنورة مصطفى ساخمة لرسول الله بالله ساخمة لرسول الله أمنا ساخمة لرسول الله بالله وجاء مدينة المنورة النبي رسول الخالق محمد صادق من مالك الله Sabe سبب راديا من البيبي إلى الجنة lii moom ami si baari min nimatin wal baari munu Bamba dem

الجبال من نعمة والبار من حمياء الجبال من نعمة والبار من حمياء البار من نعمة والبار من حمياء One.

منفردا منفردا نور لا فمن إن القصيدة راء آخر راء خسداوي خسداوي من بمبم إن القصيدة راء آخر الضحى أنني يفوز لدى مولى بجنات أنني يفوز يلا ندم الجنة للآمن خدم يفوز لدى مولى بجنات أنني يفوز لدى يلا نجنون مولى بجنات خدم يفوز لدى يفوز لدن مولا بجناتي حقا يفوز لدن مولا

Sama

كبر أنا تير بلا أنا أحمد من جود أكتوفي أحمد من مرجبا أنا تير بلا أنا سنسان فردنا تبجا mooy xam daraja al Seex Abdul Xaadir al Seex al Seex farduna jibja mooy xam daraja xam daraja njëkkam ak ñoom li si ba ay Seex Abdu borom dëgg xam daraja ay Seex Abdu sama njëkkam ay Seex Murtada سند إلى أولياء أي سنة فاتجة سنة خريجة أسمك كبير سنة ميتة سنة أسباب ولا مولود مولود يا دي يا دي سنة في الأولياء أي سنة مولود Moussena soxna Mas soxna Aliou Seydou soxna Mahi Soxna muy noo dina wet muy noo dina wet nekkal fii sunu wet nekkal fii sunu naa li poora ne maar jaay muy noo dina wet Cheikh Amadou Bamba nekkal fii sunu wet Amadou Bamba yimɓe sekata samba samba bamba cheikh bamba ba ño amɓe harba singeelen may ba yo jere sare cheikh bamba ba cheikh abdourahman ba samba samba jom sa Cheikh Bamba ko bu soo génnee

falu salik fadlullah salik fadlullah ma seex fallu seex fadlullah loo ma seex baba bi ismillah ay ana soppey alaaji fallu bi Tuuba sëñ fallu sëñ fallu sëñ fallu fallu li ma seex fallu seex fadlullah loo ma sax la wa am na bismillah عبد الكريم مكارم الاخلاق يا ستم سلمان سلمان يا رب الله يسلم يا ستم سلمان على جفل ومدام مدمون في البحر لا Manana jaayam Maduna jaayam maam danga aajam Sidi Lamin Bara Bara Aminata Lo bayu seet Sidi Mokhtar sama waaja yàlla yàlla doon Baye Sall Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall

Baye Sall Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall Cheikh Saliou Xumba Mbacké Baye Sall Cheikh Saliou Mbacké Baye Sall tibal te dolli nu tibal te dolli nu ambaala joxlu na gan yaay doo day bamba Cheikh Saliou Mbacké ba tibal te dolli nu moo baaw ambaala joxlu na gan moo baaw maa ngi ma ànda Seex Saaliw Sëriñ Saaliw maa ngi ma ànda sama waa ji Seex Sidil Moxtaar Seex Sidil Moxtaar Seex Sidil Moxtaar Seex Sidil نساء المجلل واب في ساري سفري دمنا بنيو jeewal soo dem saaxal fa xeewal ñu ngi fay daje di màggal oh. ak di fa siyaare nga dund jeewal sa Ahmadu Ba soo dem saxal fa xeewal ñu fay daje di màggaloo ak di fa siyaare bis ba nga ñëwee ndar ndar kabar ba nga ba nga ñëwee Ndakaaru ñu bëgg mel ni daaru mu jëm ñu de la teroo nga ak si ñu siyaare ba nga ñëwee ndar ndar géej ndar géej di màggaloo bàyyi seen saalim dem nga géej yi ba dem si saanaan see ràmbee dargee dargee di ka baroo alxiraasiyaay xaadim foo jëm ñu di la teroo nga ak si ñuy siyaare Cheikh Ahmadou Bamba xaadim foo jëm ñu di la teroo nga ak si ñuy siyaare nga ak si ñuy siyaare خادم المستوى خير الخديم شيخ أحمد بن مود مكباري خادم الرسول شيخنا الخديم خادم الخديم شيخ أحمد بن خادم الرسول شيخنا الخديم خادم الخديم مود مكباري أحمد التسريف xaadimu rasul Cheikh bu mag bi borom kaala gi borom tukki bu mag bi borom ñibbisi bu mag gi borom jumaa yu mag yi borom màggal gu mag gi safar borom masaalikul jinaan Seyxna al Xadimi sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba murid yi ana ku sopp bàyyi sëriñ Saalihu jàmbaar ja yaa juli tundu jeewal bi yaa juli biro ndarba sëriñ bi yaa juli ci géej juli gërëwaaw juli baafari juli maayon nga juli gabon juli limbarwali juli galwa julli baafali julli lambalana julli kalambasa julli brazzaville julli kabinda julli cameroun julli idi buruki julli banana julli Conakry julli Giri Giri julli Matadi julli Foloba julli Lumé julli Assamé julli Kountuno julli Jeewal julli Kokki julli Lugolo julli Ndar julli Dakar julli ca géej ga julli ca bato ba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba ana ku sopp maami Cheikh Sidi Mokhtar jàmbaar ja yaa julli balaa sibil julli kabil naa Serigne Touba borom njaareem xaadimal mustawa Serigne bi Mbàkke mooy borom jumaa ji borom Touba yaay kellu ku ci mbooloo buri jaali yëpp dajaloo sëriñ bii nga wat leen amoo fii ci dunya ak ca aljana borom Tuuba maqaama Ibrahima fii bëri ma yomba tubaab ya naa sëriñ sunu réew mi gaal ga daw ba wàllu tisbaar Bamba di ab madam bu dikk daal fay yoor yoor la gaal gay teddi jëm ko naa kiri bisu di biir jël noonam yanaa giri giri te taggo la gaal ga ko seddun ba junaa tabam maran yay konte keroog la sëñ bi jëkk a gis kurmaana ak timine kurgoy ñu néewi maana مجال رب وكراك وكميرون ساسا نريلا واتيكار كنفنيون وقت لفيت خو تباب يلين مدقي إلا كناكي تباب يسوق ميلي لجال جتيري في غرام بسا يلومي فان لا يميلا كبلا بسا فوفي لدام وجي فنان بسرولي foofa post bu la sore naag baafali mu dellu ca gaal ga jaari lume jaari asame jaari kuntunoo daal di xëy jëm ndaw mi sete seex bamba xëy jëm ndaw rombuli ko sa kaw tubaab bi ay arme fii la Faransa kunga farañse ak luwaaga bon waar romb na leen bu yàgg sëriñ bi moo doyug waar weesu bara siwil ak ka binda ñu naan ko min def nga am yaay ka keroog la daam jàll ba dem bana keroog la daam jàll ba dem borom Touba foofee la fekk ke ñuy wax balees mu naa ko yaay balees am yaay iblis balees naa ko maay balees ab duwaañ la waaye danaa leen dimbali ndax sa jaamu la balees rootal na sëriñ bi ay xandi ànd ak ma waa gaal ganaan ba mandi balees jox na fa pirim boo lekki lànkar boolee fi daa seex bamba guróom du sankar li lee tax mu at gàttay xaama bal sasil daf doon liggéeyal seex bamba ma jëy sasil kere la gisee duudu ma mbay duudoo nga naan ko bamba bay du sooru boy seex bamba naan ko ndaw du balam saamaan léemu ko buusu du su géej tey saawaan duudoo nga naan ko yow bamba yaa waaye tey nga xam ne sëriñ sépp maa leen sànq Cheikh Bamba naan ko soo njëkkee woon ci man dootoo laal keneen ndaw du solu ma sumba ayam sakkantuma kawaram ma seeg maamam santanu war bano amee ku na daa Mbàkke mu nuy bëggal ci Moustapha te Moustapha ci xasidaam sunu jant ak yow daam جيتنا دنيا كنت خديمنا عند ربي فنقول جميعا فنقول جلي صاحب سفينة لله تعالى برم توبا جاخلنا باقي دون بروميروان تبلو نبورسي تجرم لوم باخان تايما باكلا يا ربي yàgg nga daan tey ma bàkk la yaaram bi yàgg nga daan magi maam Cerno magi maam Cerno magi maam Cerno ala ko sopp Cerno borom Daaru Muxti ma ngi meewa Sidi Gaawaan bàyyi Basiru Baara wa Abdurahmaan Maymuna Faati Jaw wa Asu Gaawaan tisbaari jeewal moo waral màggalu Tuuba sëriñ bi nee na gi waaju ko màggalam palaas sagal ga tisbaari jeewal lañ ko jox me daayima njol ma kanaan ko doxal foo geesu gis ma tisbaari jeewal lim defar ci diine kenn mënu ko lim xable yow mi diin ñellal la mbaa wàcce nga wàccale ñëpp tu am nga niimaa Ahmadu Bamba Ahmadu Bamba wàcc nga wàcc

ndeysaan màggal gi mooy sunu ndam jërëjëfe màggal gi waaw booy jënd rek jëndal qualité bokk na ci li lay noppal waaye booy wër qualité ñëwal fii ci Touba Daaru Koso communication waaw TDKC 313 mooy kër gi jóg taxaw temm ci faj seen jaaxle ci lépp lu jëm ci wàllu portable ak i accessoire am ba noppi nag dinañ ci defal ay njëg yu xéewale lépp lu jëm ci wàllu marque de qualité waaw tamu soxal portable moo xam muy LG iPhone Tecno Itel Nokia Samsung ba ci yeneen marque yu ngeen dul fekk fenn fudul fii ak lépp lu jëm ci wàllu accessoire moo xam muy chargeur écouteur bultuf bépp xeetu écran wala digital waaw anti choc waaye yamuñu foofu de lépp lu ngeen soxla mu jëm ci wàllu décodeur wala clé ba ci carte mémoire diggante 1 giga ba 64 giga offert MP3 dernière génération nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour vous satisfaire ñu ngi nekk fii ci Dakar rue Moussa Diop angle Ravanel ci salle ngeen di fi fekk ñu xereñ lool mën seen liggéey dolli ci yërmande muy Serigne Abdoulaye Ndiaye ànd ak Serigne Moustapha Fall ak Serigne Cheikhouna Kouma 77 553 32 33 wala ngeen ñëw ci suñu place bi nekk ci avenue Sénégal angle Blaise Diagne gérant bi di Khadim Ndiaye 77 411 30 94 am nañu beneen place bu nekk fii ci rue Moussa Diop angle escarpé ci wetu Sénélec Vincent lépp lu am ci yeneen place yi am na fii gérant bi di am ni xumba ngeen mën a woote ci 77 920 29 29 77 284 71 91 TDKC 313 waaw roy daal du ñëw pire. day wane ay kéemaan yu rëy rëy di Bamba dem ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo loo jëf ñu dal koy ful lu doon ngi màggal gi nag moo ko daa def lim ci digle da ñu jaamu yàlla ci sunna sundi jël laa ngi